woon sama sama ak seet seen toogaay nekkee ak naka la ambassade ci seen toogaay sur le plan administratif li ñu li loi may pour ñu def ko ñu def ko ci jàmm defe naa ne boobu fekk na am na yu ñu yëkkati comme ay euh, euh, euh, préoccupation mu doon par exemple affaire li ma li ma njëkkoon a jox comme euh, problème yi ñu doon jànkoonteel mu doon wàllu passeport yi ñu war a renouveler euh, beneen bi mu doon wàllu sénégalais yi ñu téye woon ñu demoon tabaski 2016 ak protocole ñu téye leen fa muy ñaar ñetti bi mu doon ñi bëggoon affaire financement am na ci ñu waxoon nekk que déposé nañ sax seen dossier directement pas par ambassade bi directement Dakar beneen bi mu doon ñu bëggoon ci yenn projet logement yi Sénégal ñu boole si waa diaspora bi nekk fii euh, loolu waa waa waa São Paulo am na yeneen ñu ñeneen laajte yeneen commune yeneen association ci yeneen ville mais ax lu ci leneen li mu doon jàppale tamit chaque fois bu fi kenn wàññeekoo ci communauté bi pour ambassade bi mun a participer parce que duñu woon gis ambassade bi def dara mosuñu woon aidé may fàttaliku nag si yooyu yi ma wax nii yëpp diggante boobax bi ma fi ñëwee léegi année bi ci topp mujjee naa organiser ñaari déplacement wu passeport renouvellement passeport ci benn at bi ci benn semestre bi sax laay wax ndax benn bi avril la ñëw beneen bi ñëw juin ñaar ndax première fois bi dafa gàttoon 15 jours la ñu waa ministère de l' intérieur yónnee woon ñu wax leen dafa gàtt yónnee beneen mission. mu nekk ci diggante diiru ñetti weer ñu yónnee fi ñaari mission passeport euh, beneen bi muy affaire euh, ñi fi wàññeeku donc bi ma fi ñëwee ba léegi. ci wàll li ñuy yónnee euh, DG mi ngi fi sax di nekk seede parce que ambassade bu nekk à l'extérieur ministère des des affaires étrangères dafa am enveloppe bu ñu leen di jox par semestre euh, mu nekk bi ma fi ñëwee ba léegi si ñi ma bind bi ma ñëwee di ma wax ma ne leen loolu mën na nekk mais à condition que ngeen bind parce que tamit euh, ambassadeur bi yorewul xaalis état bi lu nekk fu nekk mu dugal ko lu mu yëkkati dërëm rek daf koy justifier ma ne leen bu dara amee loolu amee boo leen bindee ambassadeur bi ne ko tel nit dafa wàññeeku dañu saxla ngeen jàppale ñu ci. man damay jël këyit boobu defar lu ñuy tuddee décision daan ne moo ci génn laa ciy génne pour euh, nit kii sénégalais bi génn dool yokk ci laissez-passer mortuaire muy këyit bi koy permettre mu dem dolli ci certificat de décès pour yóbbu ko nga xam ne bu demee Sénégal kenn du ne dama jël xaalis bi am na fenn fu mu ko jàll mu leer fan la jàll. boobu ba léegi bi ma fi ñëwee ba léegi defe naa ne ñi ñu ma bind yëpp amul kenn ku ma bind muy waa São Paulo ba beneen euh, ville. bind demande pour assistance rapatriement te amul réponse mosul am ku ku fu mu nekk rek ku bind rek am na tontu joxe naa booba léegi deux cinq 2500 laay yónnee 2500 reais ba weer bi passé la fa dafa xaalis bi jeex parce que euh, malheureusement day nekk lu am ñi fi joto a faatu ci premier semestre dafa xaw a bëri diggante euh, Brésil ak Argentine ba bi may waxanteex euh, euh, ba mois dernier ma bind ministère ne leen li ngeen yónnee jeex na yokkal leen ñu pour deuxième semestre bi ma toog sax xaar dara amul ma oowee DG ni di ko wax mu ne ma ah Brésil bokkul woon ci ñu ñi boole ci deuxième semestre bi ma ne ko déedéet il faut ngeen boole ñu ci waaye bi may wax ak yéen fii gisuguma dara donc diggante première année euh, janvier ba juin ñi fi génn ñëpp yónnee nañ leen loolu mooy ñi nga xamante ne dañu wàññeeku de manière naturelle li Sénégal di def mooy bu fekkee ne que dafa am koo xamante dañ fi wàññeeku ñoo xamante ne par accident par meurtre mort violente li ñu tàmm def mooy bind ministère parce que loolu ñun ambassade bi muy man muy beneen ambassade wala consulat amul budget bi lu ñuy def mooy bind ministère nekk lii xew na telle personne wàññeeku na fi dañu soxla rapatriement parce que bu yooyu dafay diis état bi moo koy jël en charge te chaque cas il faut ñu xaar ba état bi del euh, euh, euh, réagir ñu mën a def dara loolu mooy ñi nga xamante ne par mort accidentelle violente donc jarul may dellu siwaat si ñi fi cas yi fi am def naa yëpp yi fi am benn bi mujjee te jox joxe gu ñu génn gu jot ambassade jotagul xaalis muy bos bosu ndàkk njàkk parce que bind nañu mais réagir guñu xam association bu euh, Belo Horizonte donc il est courant Dakar euh, réagir muy euh, benn bi passeport yi la woon deuxième fois bi mooy assistance yi pour dépôt yi rapatriement dépôt yi beneen bi boo leen demandé woon muy affaire wu participa kii nu recevoir fonds yi bind nañ tamit loolu du ñun lu ñu mun rek mooy bind pour que ministre bi jox ay instruction euh, femme bi yore fees mais boobu tam wax naa ne balaa femme bi yore fees bi réagir il faut que yéen ngeen defar ay projet projet yi dem ñu tànn ci projet yi bu ci nekk ñoo xam ñaata lañ koy joxe boobu wax naa ko fi benn nit moo wax ne ko bind na projet yónnee waaye daf ko yónnee directement donc projet bu ma gisul man mënuma ci défendre xanaa ma gis copie li ma recommandé woon mooy ngeen defaraat projet yi jaarale ko euh, ambassade bu ma ko yónnee man ma mën suivre lu ma yónnee mais lu ma munul yónnee lu ma gisul munuma ci mënuma ci def dara mais rappale na ni ñu femme bi ne ko da ngeen soxla euh, bénéficiaires yi parce que projet bi pour ñëpp la sénégalais yi nekk diaspora bi yëpp la ñu wax waxuñu Europe wala euh, Asie wala ñëpp la. donc loolu muy question bu ñuy suivre ba tey def naa posé waat nañ ko mois de mars bi ministre des affaires étrangères toogee ak euh, premier ministre moo ma juumul waxaat nañ leen ko donc euh, def naa ñoom ñoom ci gën a am am euh, pexe waaw beneen bi muy affaire habitat bi boobu tamit bind nañu jokkook directeur de la banque de l'habitat du Sénégal mu nekk euh, projet bi intéressé na ko dina fi ñëw pour xool naka la ñuy def pour ibbi même cellule bi ñu am New York boobu léegi tam ñu ngi koy xaar parce que tamit loolu euh, li li ma mën a def rek laay def bind naa leen yëkkati naa sama téléphone jox ko moom mu ne dina ñëw donc DG c'est une occasion aussi boo mënee pousse au niveau de du DGC pour que. mu euh, xëj na mu am ay jéego yu mu yu mu yu mu teg si par rapport à ce projet là. léegi xaw ma ban point laa fàtte je sais pas ndigam jaar naa si point yi li ñu fi euh, yëkkati woon comme. Euh, carte d'identité yi waaw bi ma ñëwee tamit ñëpp wax ne dañu bëgg a bokk si affaire élection yi may rappelé nag ne ambassade bi ñu ngi ko ubbi 1961 bi ñu ko ubbee 1961 ba léegi kenn mësu fi oo mission intérieure fii pour ñu defar élection. bi ma ñëwee ngeen posé ma ko en 2017 ci laa bind bindaat bindaat ba ñu doog a accepté ministère de l' intérieur yónnee délégation donc ça va être la première fois depuis 1963 63 la ñuy ibbi ambassade que ñuy ñuy organiser élection fii que diaspora bi nekk Amérique latine di participer donc muy loo xamante ne dama promettre woon de yéen da ngeen ma ko demandé dinaa def lépp pour mu am mais lépp may fàttaliku nekk man demande laa ci mun. ak suivre ministère de l' intérieur wala ministère affaires étrangères wala au niveau du président de la république pour mu joxe ay ay ay instructions donc comme ni ngeen ko xamee euh, mission bi ñëw na au mois de mars dernier en la mi mars def euh, enregistrement du ka du du du élection rek am na ñoo xamante ne di bëgg a euh, voté am na ñoo xamante ne voté intéressé wu leen carte d'identité moo leen intéressé mais mission bi ñaar yëpp la ku bëgg a carte d'identité ku bëgg a voté yëpp. di nga am sa carte dante incha allah yónnee nañu liste yi jox nañ ko président association yëpp pour que ñëpp xool ndegam seen tur amul ay erreur wala loolu yu ñu war a rectifier balaa ñuy tiire carte di ko ñëw distribué waat donc muy nekk euh, yoo xamante ne question problème yi ñu posé woon fii Samsoo la wax naa ne am na yeneen problème yoo xamante ne yenn association ñoo ko euh, ñoo ko posé woon mais yaakaar naa ne yooyu moo posé woon San Paulo te yaakaar naa ne def naa ci lu ma mën léegi tey tamit c'est l'occasion encore bu fekkee ne dafa am na yoo leen posé woon yoo xamante ne ambassade bi deful lu mu si waroon def ñu amaat ñu discuter waat ci tey jii ñu xool tamit au niveau de la direction générale de service sénégalais de l'extérieur lan na ci mën a dolli pour que yëpp réaliser wu. problème lay doon parce que comme euh, gouvernement bu njëkk bi tëjoon na euh, consulat général bi ñun ambassade bi dañu sori il fallait que waa san Paulo organiser wu pour ñu am ni ñuy jokkoon. Euh, wax leen ko ne leen il faut ngeen réunir waat fekk gëjoon nañu réunir assemblée pour organiser waat def naa ne grand papa nekku fi mais moom laa toogoon waxan waxtaan ak moom ne ko seetal ñoo ñu jàppale ak ñi nekk fii euh, Brésil yàgg fii ñoo xamante ne mun nañu réuniraat mbooloo mu waa San Paulo defaat ci association bi def naa grand papa moom moo def euh, jéego yu am solo def premier réunion bi ñu njëkku ñu yónnee PV bi wax ñu ne dañu def benn euh, organisation bu ndaw en attendant ba ba fi mu nekk di ñu amaat association am président vice président ak secrétaire général mu nekk lu am importance parce que fi mu nekk nii ñun à partir de de l'ambassade association bi mooy suñu mooy suñu interface ndém amaguñu parce que amaguñu consul amaguñu consulat loolu tam mu nekk loo xamante ne rek bind naa ci euh, Sénégal pour wax ne que il faut ñu ibbiwaat parce que ba léegi autorité seen euh, brésilien yi sax yenn saa ñuy bind ba pas plus tard que cette semaine jot naa benn courrier ñu ne am na courrier bu ñu leen doon envoyé yónnee nañ ko seen consulat général bi mais nekk fa moom mujj leen bind na leen consulat bi existé tout donc euh, am na yoo xamante ne euh, loolu question bu urgente la ba léegi lu ñu war a continuer di poussaat auprès du président de la république wax naa tam waa association bi mun naa aider comme ni ma defoon ak waa Argentine. ngeen defar euh, euh, euh, nu mu tëddee CV mooy curriculum vitae ngeen déggoo si yéen am kenn koo leen wóolu pour mu nekk consul honoraire man si sama wàllu bopp en tant que ambassadeur consul honoraire laa mun a introduire proposer dafa am lu am différence nag ambassadeur mënul wax waxu consul général parce que profil yi du benn démarche yi du benn forme dëkk ba la mais neneen la. consul général président de la république en général moom mooy décider kan bu dee man maay proposer consul honoraire laa mën a proposer ñaar yëpp dafa dafa différent consul général fon en général fonctionnaire état bi lay doon ñu koy fay fii di ngeen gis ay brésilien wala yeneen xeetu nekk consul honoraire général mais ba tey honoraire lañu consul honoraire mooy kuy liggéey am liggéeyu boppam am autonomie soxlawul salaire soxlawul dara am na fu mu mën a def bureau pour recevoir sénégalais am na jot fu ñu ko oowee 2 heures du matin mu jóg parce que Sénégal am problème police mu jóg dem dafi ji lijjanti Sénégal fayu ko salaire dafay nekk koo xamante ne dafa bëgg Sénégal rek te yàlla tax mais dépendrul benn yoon ci Sénégal loolu donc Séné mun na nekk na xeet bu nekk kenn waxul nekk Brésil la consul brésilien la war doon non parce que am nañ fi brésilien amoon nañ fi sénégalais. Belo te fekkuma ko fi de nañ dafa dem egg li jàngam en Europe euh, am nañ fi français euh, donc am nañ sénégalais brésilien français donc mun na nekk xeet bu nekk l'essentiel rek mooy mu xam ne que dafa war a liggéeyal Sénégal mais mu autonome du xaar salaire du xaar benn avantage ci Sénégal moom daal dafay daf koy def euh, te yàlla taxawal mu bëgg mu bëgg Sénégal mu am jot am jot tamit il faut mu am jot. am ay locaux bureau yoo xamante ne bu dara xewee mun nañ fa dem dem defi ji dara comme euh, euh, euh, révision liste électorale yi suñu consul honoraire yi yi ma yi ñu yi ñu am fii ñoom ñëpp dama leen contacter ne leen pour ñu recevoir commission bi consul récif bi moo ut fu mu dugal commission bi ñu recevoir yi consul Rio bi moo def même chose consul Curitiba moo def même chose Belo Horizonte sénégalais yu fa nekkoon nekkatu fa donc euh, le fait que ngeen organiser waat en association daf ñuy faciliter lu bëri parce que régulièrement chaque deux semaines tamit wala trois chaque mois daal ñu jot message police fédérale am na sénégalais bu nekk war ñu war ko juger dañu soxla ku ko ku ko ku koy dem tribunal pour assister ko pour interprétation bi man lu may def mooy contacter seen euh, euh, association bi San Paulo wax ne kenn si wax président utal kenn na SG wala euh, vice président dem kenn dem jàppale sénégalais bi donc yooyu muy yoo xamante ne yu gàtt yoo xamante ne ñun mënuñu ko dox chaque jour diggante Brasilia ak ak São Paulo beneen bi lu ma waxul woon sànq si ñu doon demandé consulat euh, honoraire euh, dugal naa dossier bi may doog a ñëw maa ngi ñëw novembre ma dugal dossier kenn décembre benn dam bu nekk Porto Alegre président joxe feu vert am ba fi mu nekk ni saye ñoom waa Porto Alegre léegi am nañ consul honoraire donc mun na mu nekk loo xamante ne c'est très possible tamit fii San Paulo mais il fallait au départ li grand papa def réuniraat ñëpp organiser waat ngeen toog ba organiser waat pour que yéen ngeen mën a toog décider à votre niveau euh, dugalaat euh, projet boobu mais c'est c'est très possible amul dara lu koy tere dafa am yoon yu muy tëral rek parce que tamit il faut mu nit ki tamit bu dee sénégalais. bu ñu la déposé sa CV dafay am enquête de moralité buy am Sénégal ñu xool ne amul dara lu ñu lay reproché mosoo def prison mosoo def dara ba président ñu jox résultat yi président président jox waaw ñu yónnee ma courrier bi fii man Brésil ma bind euh, Itamaraty ministère des relations ne leen suñu président nee na waaw pour telle personne ñoom tam mu jëlaat temps foofu parce que dañuy enquête ak ñoom tam seen bopp muy sénégalais muy brésilien ki nekk euh, euh, Porto Alegre par exemple temps bu jël rëy la jël. am na benn instant sax dañ ko rejeté parce que dañ dafay liggéey ci gouvernement bi mais il a fallu que mu génn ay documents bi wane ne bàyyi na arrêté woon na bu yàgg elle était à l'université comme chercheuse ñu mun ko ki donc dafa am enquête ñaari côté yépp ba ñu d'accord ñu jox la carte parce que waa ministère relations extérieures ñoo lay jox carte euh, carte euh, diplomatique buy wane ne ko consul honoraire Sénégal donc lu ci nekk rek possible na mais dafa am fu mu war a jaar donc ñun ambassade bi ñu ñooy intermédiaire diggante fii ak euh, Sénégal mais diggante fii tamit ak euh, ministère des relations extérieures mais félicité waat encore une fois association bi le fait que ngeen organiser waat que ñu mun a liggéey en étroite collaboration ak yéen. merci beneen deuxième cas ku tudd bu ma juumul Fallou falu Sène moo xamante je crois que nekkul euh, Florianopolis la nekk. Fallou Seye Fallou Seye voilà Florianopolis la nekk. benn prêtre moo ko ramassé ci mbedd bi yóbbu ko ci benn ci église prêtre moo ñu bind du sax sénégalais du association sénégalais prêtre si wax moo ñu bind wax ñu ne que dafa am benn sénégalais bu tudd tel mi ngi nekk ci mbedd bi je crois que dafa drogué walla nangam nangam est-ce que duñ ko mën a aider mu ñibbi ñu o papam ñu laajte ba xam ndax am na fa benn doom baayam bi fi nekk oo papam wax ko papa ji xëj na ñibbi si gënalu ko woon mais ñun ñu gis situation nekk ñu filmé ñu ko wàññi ñu ko nu mu demee. ñu jëndal ko billet jëndalaale sax frère am parce que boobu yi période toog nañ un mois di août kuy ñibbi Sénégal koo xamante ne dina accepté yóbbu ko parce que àndul ak sagoom mujj jëndal frère billet pour frère am pour mu accompagner ko ñu dem ba jënd yëpp ba août billet yi ñu ne ñu législation bi parce que tamit bu ñu yenn saa yi di wax suñu bëgg-bëgg rek dëkku jàmbur lañ nekk yi fa ñu respecter loi bi ñu ne ñu jënd ngeen billet. mais législation brésilienne kii dafa am protocole loolu mooy statut réfugié la fi dugg see mënuñu ko bàyyi mu génn tant que moom joxewul avalam waxul waaw ñu laaj ko moom bien que drogué la ñu laaj ko parce que euh, euh, majeur la mu ne du ñibbi parce que dañ ko doon maltraité Sénégal moom ci boppam mu ne du ñibbi parce que bu delluwaatee dañ koy maltraité si daara la nekkoon ndax nangam nangam du dem ñu ne ñu nag police fédérale nañu. mënu leen ko yóbbu par force doo leen ko mën doo leen ko obligé dañu mujjee perdre billet bi pour vous dire que am na ay cas mais du lu ñuy wax ñun chaque fois si biti bu ñu saturé directement xëj na yi ngeen di di yëg mooy yoo xamante ne dossier bi dafa jaar si association bi mais bu fekkee ne que par exemple comme li ma wax nii benn couvent benn église moo ñu bind directement ak ñoom ak assistance sociale yi ak police fédérale la ñuy jokkoo pour régler loolu donc mu nekk benn cas boo xamante ne mujjul sotti mais def nañ ci lu ñu mën dañu mujjee perdre billet yi Euh, parce que euh, euh, kii bi ma doon wax noonu crédit bi may wax pour dépôt yi benn tur la tudd aide de assistance au Sénégalais en détresse donc ku am problème ku feebar mënul jàppale kii comme Bassou Maka Touré ku bëgg ñibbi te mënatul dem mu wane joxe ay preuve ne que mënatul def dara ak dépôt te si dépôt yi tam maa ngi fàttaliku bu baax bi mu fi ñëwee ñu wax ma ko dama ne leen. li ngeen mun a parce que du ma du ma du diggee mukk lu ma mënul ma ne leen li ngeen mun a cotiser yéen en deux jours pour yóbbu dépouille moo ëpp sax ñu man lu ma am ambassade bi comme euh, euh, euh, budget defe naa ne wax naa ko bu leer ma ne li ngeen mën a am ñun ambassade bi mënuñu ko am li ma mun a am rek mooy contribuer mooy jël participer mais yéen li ngeen mën a dajali en tant que sénégalais en deux jours ñun amuñu ko bu ma ko waxee moom du ko sax loolu moom mënu ma ko sax wax. parce que def naa ne wax naa lu leer mënuma yëkkati benn am xaalis sax nekk fa lu ma yëkkatee pour yóbbu benn corps li ngeen am capacité cotiser ambassade bi amu ko comme budget 6 mois amu ko pour un an pour yóbbu corps man ne leen nag du ma diggee kenn dinaa rapatrier lu ma mun mooy contribuer donc depuis boobu ci la ñuy def di contribuer 2500 euros parce que loolu la ñu mun bu ñu jëloon def ko benn kenn la ñuy aidé mu jeex année bi année bi jeex ndax maa leen fàttaliku léegi ne wax naa ne que pour 6 mois yi yoratuñu dërëm. depuis fin juin amakuñ amatuñu dërëm yàlla baax na dara xew fi ci diggante bi pour que ñu yóbbu à part benn bii xaar te boobu Dakar moo ko war a gérer donc en fonction ñun lu ñu am la ñu mën a di aider beneen bi mooy accompagnement aux initiatives économique et sociales je vais laisser le DG revenir euh, réunion d'information comme forum bi la war a doon pour wax euh, yenn éléments yi protection et défense des intérêts donc euh, mu nekk li ñu wax ne que gisuñu protection gisuñu assistance bon loolu point de vue am la sànn euh, euh, xalaatam la mais man bu ma gisee ne maa ngi génne 2500 euros euh, réal pour ku ku soxla dem loolu assistance la tudd si liñ ma liñ ma liñ may jox ne ma pour assistance loolu assistance la tudd moom nee defuñu dara bu ko neexee li ñuy ku am problème bëgg ñibbi détresse bëgg jënd bii ñu jëndal la loo tam assistance la tudd. ku nekk en détresse ñu ku nekk malade liggéeyatul ñu war la jàppale loolu tam assistance la tudd si liñ ma jox ne lii pour assistance la loolu laa ci mën a def mënu ma inventé leneen nag du lu dul liñ ma bindal ne ma lii nga mën def euh, mu ne euh, euh, protection et défense léegi bu kenn décédé ñun ambassadeur muy man muy ambassadeuru France muy ambassadeuru Italie muy ambassadeur beneen dëkk ambassade boo nekkee ci benn réew benn interlocuteur nga am sur le plan diplomatique bu dara xewee ministère affaires étrangères ngay bind ku fi wàññeeku par accident bind naa not verbale li ñu wax note verbale adresse ko ministère des relations extérieures ne leen teew tel sénégalais bu décédé tel assassinat tel bés bërëb sàngam ñii la dañu la kii jàppale leen ñu ci enquête ngeen wax ñu lan moo xew ngeen dellu ci waat ci ñun ñu mën a informer en même temps ma informé fa euh, Dakar tam wax leen tel décidé na saisir nañu ministère si yi ma def si bi bu mujjee bi mun ma ko compter parce que bu récent la si 4 cas benn laa am retour ñu ne ma ñoom parce que ñoom après euh, ministère des affaires étrangères mooy saisir police fédérale ambassade amul droit dem directement si police fédérale waaw parce que bu ñu la accrédité dañ na la yow affaire étrangère ngay dépendre ñoom ñu dox euh, ko police fédérale police fédérale ne leen ñu ngi enquête Euh, def nañu autopsie bi lii la ñu gis ñu bu ñu amee beneen information dinañu jox ba sànq ba léegi mais loolu day firndeel li nga wax parce que ma tam gis naa ne statistiques yi nga wax bu 2017 euh, yi wane ne presque 62 000 nit moo dee Brésil daaw en 2017 si 62 000 yi 5 000 et quelques yoo xamante ne euh, policiers ñoo leen rey ak 300 et quelques yoo xamante ne ay policiers yu rey la te si 100 bu nekk 8 cent mooy am réponse gis naa statistiques yi nga yi nga yi nga ça veut dire que si 100 nit yu ñu rey 8 cas juróom-ñett juróom-ñetti cas rek mooy dem ba enquête bi mujjee ba ñu wax ne lii la bu le bu bu mujje rek mooy Vereador bu Rio mi ngi dese de depuis ñu ngi ko exécuté dañu ko exécuté sax ci tali bi yàpp ça cinquante jours ba léegi kenn jàppalu euh, euh, jàppaluwul jàppul euh, meurtrier yi mu nekk cas ru régulier bu ma waxee 8 pour cent sur cent cas 8 personnes 8 cas rek la ñuy police dem ba enquête ba xam ñan la donc du ñu ñun tamit xëy na naqari ñu ne parce que sénégalais lañu mais bu ñu wax nekk rek sénégalais lañu ñi ciy dee dëkk bi dafa violent Brésil euh, du dëkk bu violent dëkk bu violent la ñoom seen bopp xam nañ ko boo gisee publicité bi ñuy wax fii avant les euh, Jeux olympiques bi nit yi di dem avertissement yi ñu leen def par partout au monde du Sénégal rek ñi doon am euh, équipe yu ñëw avertissement yi ñu leen def par rapport à Rio par exemple parce que Rio foofu foofu la raay bi te ne ça veut dire que dëkk bu violent la ñun ñoo war a jéem a seet c'est ça va être difficile parce que sénégalais lu ñu leen mën a reprocher reprocher du ñuy dox doxantoo gànnaay muy arme blanche muy pistolet comme ñoom alors que brésilien c'est quelque chose de très fii circulation arme yi daf fi yomb ku sa néew ku néew doole bandi yi yore doxantoo euh, euh, arme daf fi bëri donc dañuy xam ne que Brésil dëkk bu violent la et en plus euh, enquête policière yi du aboutir tout le temps mais c'est pas parce que amuñu benn résultat si par rapport ak sénégalais yi ñu wax ñu ko ambassade bi deful liggéey dafa ambassade bi bind na parce que bind la ñu mun euh, nu mu tëddee ministère Itamaraty di xaar moom mu mu réagir ñaari cas yu mujj euh, à part euh, sant au Brésil am na yeneen deux cas yu yàgg benn bi ñaar yëpp fële la Argentine donc accrédité wuñ ma Argentine mais bind naa tamit ministère des relations extérieures du culte. parce que laajte naa foofu association bi ñu jox ma référence dossier juridique yi ñaari cas yi seen enquête seen seen magistrat bi def euh, enquête bi seen numéro dossier ak fan la toll mu bind joxe référence yooyu yëpp euh, ministère relations extérieures pour laaj leen ñu jàpp ñu si enquête parce que ba encore une fois amuñu possibilité dem directement duñ duñ ñu uyu du am sax ko koy waxante donc euh, relations extérieures la ñu mën a def la mun a jàll ñu ngi fay jàll di xaar ñoom ñu répondre donc euh, ñun ñu ngi def assistance bi ñu ñu mun a may suñu suñu doole fu mu toll ñu ngi koy def euh, les femmes du Brésil ne se voient pas dans le plan Sénégal émergent je vais laisser le DG fois internationale de la culture may wax rek ne effectivement affaire ibbi consulat bi euh, lu am solo la mu encore une fois consulat bi c'est au-delà de ma personne comme ni ma ko waxee man en tant qu'ambassadeur consul honoraire laa mën a proposer consul général si président la donc euh, muy loo xamante ne bind nañ ko depuis bi ñuy doog ñëw tamit poser problème bi nekk il faut que ñu ibbiwaat parce que y un travail à faire au niveau de de de de São Paulo li ma mun rek mooy wax DG si compte rendu mu rappelé waat encore dossier boobu nekk l'ambassadeur avait déjà introduit une demande pour ñu ibbiwaat consulat général bi donc parce que ça c'est c'est euh, c'est au-delà de ma, de ma personne et de mes capacités. Donc je ne fais que proposer, j'ai fait les propositions, donc c'est à l'autorité d'entériner. recensement wu sénégalais yi mu nekk loo xamante ne lu compliqué la parce que c'est une demande générale on a une soixantaine de missions diplomatiques euh, à travers le monde te amul si benn mission benn dëkk bu ñu am recensement exact amul du Brésil rek amul France amul Espagne amul fenn li indi problème bi mooy euh, sénégalais yi bu ñuy génn du ñu déclarer seen def euh, en général du ñu déclarer seen euh, destination finale da ngay génn ne maa ngi dem disons Cap Vert te yow bi ngay génn xam nga ne sa dernière destination damay cité kaw secrétaire général sa dernière destination du dem du yàgg pour nga yàgg Cap Vert par exemple da nga fay toog pour quelque temps mais yaa nga bëgg avancer. Canada voilà <laughs> donc dañ lay enregistrer fenn. te leneen li mooy ministère de l' intérieur il faut mu am les moyens encore une fois loolu du affaire étrangère intérieur mooy def recensement moom mooy def euh, euh, affaire passeport intérieur la carte d' identité intérieur la recensement intérieur la ñun ambassade affaire étrangère la ñu dépendre mais ñun ñooy poser problème yi informer suñu ministre pour mu jokkoo euh, naataangoom bu affaire intérieur pour ñu mën a def liggéey bu mel noonu donc. c'est une demande recensement euh, je ne sais pas si ça pourra se faire mais comme je dis ce n'est pas seulement au Brésil c'est dans tous les pays du monde où les Sénégalais se trouvent amul benn statistique bu exact amul li ñuy am rek mooy à peu près euh, sur la base des euh, des immatriculations looloo taxoon bi may doog a ñëw ma doon encouragé ni si ñu immatriculer parce que il a fallu que ma am nombre ñi enregistré wu ma ne leen tant ñu ngi fi parce que amuñu woon information boobu tant ñu ngi fi il faut ngeen mission passeport alors mooy profité waale wax si wax mission passeport bi di rappeler ne que ministère de l' la même dernière mission bi ñëw pour passeport parce que ñoom ñooy yónnee ñoom ñooy décider ñaata jour du ñun du ñu laaj suñu avis wax ne ñaata jour ngay am non non ñoom ñooy décider encore une fois ministère de l' intérieur man affaire étrangère la la la dépendre lu may mun mooy pose problème bi am na tant de sénégalais enregistré wu nañ fii ma yónnee sax liste ñi nga xamante ne les passeports dañu expiré tant de sénégalais yu soxla. yónnee leen mission ñoom ñooy décider kañ ñoom ñooy décider ñaata jours bi ñuy yónnee première fois mu nekk quinze jours ma bind leen ne leen 15 jours doyul mënuma woon retenir mission bi benn bërëb rek nañ commencé fenn en sachant que bind leen nag ma bind leen quinze jours yu doyul léegi lan ngay mën a def yónnee beneen deuxième personne ak beneen appareil beneen machine ñu nekk deux à enregistrer deuxième option bi. bu kii ñibbee ngeen yónnee beneen finalement deuxième option bi lañ def bi kooku ñibbee ñu yónnee keneen qui est resté plus longtemps donc euh, euh je crois que ñi bëgg ñu soxla woon passeport période boobu def nañ ko on a même aidé parce que ku doon dem Sénégal si sa base date si sa passeport di périmer lañuy xool ndax dañ lay defaraatal wala déet mais dama de euh, dama négocier ak ministère de l'intérieur pour que même ñi nga xamante ne dans 10 mois la seen passeport di expiré leen permettre. ñu def enregistré parce que boo demoon dakaar euh, euh, benn police Sénégal dem sa passe soo def 10 mois nga ne da nga koy renouveler dañuy bañ ma ne leen bu fekkee ne même ba 10 mois 11 mois may leen parce que kuy voyager en général pour embarquer il faut mois de durée de validité donc jël leen loolu en compte sachant que di ngeen xëy na dans 2 mois ngeen di yónnee passeport pour ngeen accepter ko ñu accepter ko. Euh, xaw ni nga am na ñu fi nekk ñoo xamante ne c'était c'était dans cette situation mais am na ñoo xamante ne seen passeport expiré wul woon. mais quand même accepté nañu parce qu'ils sont à l'extérieur ñu renouveler leen euh, dix mois à l'avance waaw loolu tamit ci assistance ak protection des sénégalais la bokk ok fàttali euh, affaire droit d'auteur bi maa ngi fàttaliku kaa boobu mais dama posé woon ay questions parce que dafa jaaroon ci sama sama collaborateur muy ki euh, chargé des affaires consulaires ma laajte lan mooy balaa may jéem a défendre kaawam lan mooy statut Euh, parce que bu fekkee ne dafa am protocole daf may poser problème bi may doog a ñëw fii San Paulo lañ ma posé woon une soixantaine de sénégalais yu demoon vacances tabaski en 2016 ñoom ñëpp cang ñu ne ma demal seetal ba xam nag lañuy ñu mën a euh, dimbali leen pour ñu dellu si boobu maa ngi doog ñëw sax xamu woon sax lan mooy protocole ma demandé audience directeur général de l'immigration à Itamaraty mu ne ma ambassadeur ñii. protocole la ñu yore ma ne ko lan mooy protocole mënuma dañu déclarer ne ay réfugié lañu ku déclarer réfugié mooy da nga am problème ci sa dëkk moo tax ñu defal la protocole ne ma ñii dépendre tuñu ci yow en tant que chef administration sénégalaise fii parce que réfugié dafa am beneen statut international boo am boo xamante ne Sénégal mënatu a défendre man damay gëmm en ce moment ñii déclarer seeni doom dem leen di defaral signer seeni act Euh, ñuy euh, authentifier légaliser damay defaral ñoom ñëpp amul kenn ku ñëw ambassade pour euh, yónnee pour légaliser wala sauf conduit ma bañ la defal daane la parce que da nga nekk am document protocole tant que liggéey bi mi ngi def ci biir administration sénégalaise mun naa gëmm bañ a xool affaire protocole def ko mais boo leen amee problème boo xamante ne seen diggante la ak administration brésilienne da ngeen may indi teg foo xamante ne man mënuma fa wax dañ naan ki am protocole dépendre tout administration sénégalaise ma wala léegi maa ngi koy jéem expliqué dafa mel ni mënul jàll kooku dama laajte bu fekkee ne dafa am protocole man mënuma ko défendre parce que dañ naan ma amatul statut sénégalais statut international la am réfugié statut international la am def naa posé naa question boobu mu nekk même chose ñi ñu bloqué woon même en plus que yéen ñi leen posé problème bi am na groupe bu député bu dem seeti ji ambassadeur u Brésil à Dakar ambassadeur moo ñëw ba sama bureau wax ma ko ne ma groupe euh, député dañ leen saisir pour sénégalais yi ñu bloqué foofu parce que ñoom ñoo joxe euh, instruction waa euh, Brésil parce que dëkk bu nekk tam yow yaay réglementé kuy dugg sa dëkk ak ku dul dugg ñoom ñoo ne dootuñu bu ñu bàyyi benn sénégalais bu yore protocole mu embarqué à destination du Brésil loolu ñun sax information bi sax jaarul sax si ñun Dakar la dellu si waatee ak si yéen la remonté waatee ñun ñu yëg ko parce que comme comme je le dis dëkk bu nekk yow yaa am législation pour wax naka la ñuy duggee ak naka la ñuy dul duggee sa dëkk député yi dem gis euh, ambassadeur bi Brésil à Dakar mu ne leen ñii parce que dañu déclaré ne pro dañu yore protocole déclaré dañ leen noot parce que protocole mooy que déclaré dañ la sonal sa dëkk bëgguloo fa dellu ñu toog benn période septembre daaw defe naa avant tabaski mu am groupe sénégalais bu yu bëri comme fi mu nekk ni en ce moment maa ngi signé ay euh, euh, sauf yu bëri yu dem Sénégal pour tabaski bi mu alerté police comment se fait-il ku déclaré ne dañ ko noot ci dëkkam mu jóg di dellu dëkkam ñu ne seen ambassadeur pas ñun de parce que tam bu leen fàtte ne que ñoom li xew suñu dëkk ñoom tam xam nañ ko parce que am nañ ambassadeur bu ñuy laaj ba fa xew ñu laaj seen ambassadeur lan moo xew période bi ba mu am déplacement bu rëy ambassadeur bi ne leen c'est la tabaski c'est une fête sociale en général ñëppay dellu siwaat def ko dak Sénégal doo ko delluwaat les gens restent trois mois dem ñu ne kon ñii li li ñu déclaré ne dañ leen noot ay fausse déclaration la moo taxoon ñu téye seen pro moo taxoon ñu téye seen kayit donc tant que nit kaa sénégalais bi parce que man sénégalaise laa comme yéen mun naa comprendre ne que am protocole mooy circuit bu gën a gaaw pour nga am sa papier pour nga liggéey pour nga intégrer rapidement si jàmm d'accord mais tant problème bi mi ngi nekk entre ñun mun nañu gëm a bañ a xool affaire protocole mais ku am problème nag ak administration fédérale man dañ na ma mënoo ci wax. carrément directeur général de l' immigration defe na ma am list bi sax waruloo ko woon indi parce que ñii sax euh, daf ñu confirmer dem nañ suñu ambassade ñoom ñoo wax seen ambassadeur bu leen joxaat euh, euh, visa pour ñu delluwaat ñu joxe instruction au niveau des des des compagnies aériennes brésilien de ku yore protocole bëgg delluwaat bu mu dugaat donc pour défense sénégalais yi tamit. tant que mu nekk loo xamante ne ci biir entre ñun dina yomb def naa ne après déjà dina wax ne que euh, am nañ problème mu réfugié yu meloon noonu Allemagne ñu doon kaas seen cas mais effectivement tam bëggoon ut kayit mais boo xësee ba am kayitu réfugié dépendre la tuloo sa administration mënatul défendre sa cas devant la juridiction devant la police wala devant la justice c'est un problème donc booba léegi maa ngi wax c'est difficile à comprendre mais c'est parce que loi la loi internationale la avocat boo jëloon fii laaj ko affaire même chose leen di wax ku am protocole ku am statut réfugié sa état bi nga dundee bi nga déclaré ne daf la noot ba nga daw ba wuti ji protocole mënul dellusiwaat di la di la défendre donc ça c'est problème du Brésil rek sénégalais yi nekk yeneen euh, Europe yi am euh, statut réfugié yëpp ils ont le ils la même situation donc droit d'auteur boobu loolu loolu laa posé woon comme question lan mooy statut ba pare balaa may ma mun a wax dara. Hmm? bon euh, Argentine présence diplomatique bi defe naa ne ñëpp d'accord nañ ci euh, def ñu yombal suñu liggéey parce que mm, am na cas bu may citer souvent ku tudd euh, ku dem ci yàlla Cheikhou Ba toog nañu un mois.